dafa masawoo sëñ mat jaw faxa ko mat jawkat li ngeen may yéem ci yett yii laa ko ame mu ne ko yett yooyu yana mbàkke mu ne ko sa borom di lu mu digle maa ngi ko wow de noonu ciy dàqeeg yow mu ne ko sa borom lu mu tere banaa ko mu ne ko wow yi de noonu ciy dàqeeg yow mu ne ko mët jaw sa borom lu mu def neex na ma mu ne tekk ba yàgg mu ne ko woowu de moom bàyyee nan man na man na noo naqari de nu muñ ko waaye mu neex nu nag moom moom du nu doon fa def kon de foofu nga nu mane kon de foofu nga nu mane loolu yi ni mu bañ a woon aw tagg naar yi ku ne tagg na ko ibnu aynayni nee na ko lim laa takkoonu nabiyan xumma mabasuhu yow tee ngaa woote ab yonent nga sa waxtu agsi na mu ne ko atarayta atarayta atarayta ëppal nga ëppal nga ëppal nga duma yonent Cheikh Sidi yëpp lu ne tagg na ko sëriñ bi ne wa ma aybuhu illa ibadatu rabbihi wa naf'ul wara fi subhihi wa masaa'ihi sëriñ Tuubaa day ayibam mooy kuy sax yi ci jaamu yàlla la faw te lu mu am jox ko bindéef yi sëñ Tuubaa yi boo amee ayib loolu ayib sëñ bi ne cell waaye bam ne yarda isa jaratil umuru musalliman ilman bi anna ilahahu ajraha jëmm ngi jël yoo xam ne lu am neex na ko ndax nee na lu am yàlla du keneen sëriñ bi nag ges ne madaxani tagg na ma léegi de loolu sëñ bi jàpp ne madaxani tagg na ma de lu am xam na ne yàlla looloo tax mu ne ci taalifim yu bare bare rawatina tasoodu sexaar nga xam ne yéen ñëpp gis ngeen ko laysa yakunu fi jamii alaalamin muassirun fi asarin masal yaqin taalibe yi na ngeen xam ne bindeef yi kenn ku ci man dara amul loo seen yàlla loo defe ne nit a ko def mbindeef a ko def mbindeef def ko yàlla a ko def nanu góorgóorlu bu baax te dellu ci gëm yàlla te tege ci aw yoon te topp Sëriñ Tuubaa bu baax a baax a baax